fukki waxtu daal di jot eh, ci bile barab eh, fi ñuy sàndee ay xob gannaaw bile buntu nag eh, njiitalu bureau bi di amal liggéey yi mujj ndaxte dañoo tardé. il paraît que préfet bi moo teelul ñëw donc ñu ngi négocier comment ils s'organisent puisque ñaar bureau moo fi waroon nekk léegi benn bureau moo fi nekk. fi ko soriwul dara ñu daal di dem ci centre la poste foofu nag ma mel nii. respecté nañu waxtu bi. présentement amul dara lu ma la signalé donc on a commencé c'est les choses à huit heures dix minutes. xob bu nekk nag amal njariñ syndicat bi nga xamante ne foofu la ñu bokk waral nag bile soxna ñëw ngir sànni xobam naam sax xaw naa tardé tuuti mënees nañ ko nangul tardement wam ndaxte. dama waroon siéger au niveau de IHO Wakam léegi nag bi ma demee ba foofu dañ ma wax ne ma du centre de vote. jongante général soxal représentativité syndicale ñoo koy amal ca na mu waree naam nag ay gàkk-gàkk nemmeeku nañ ko. dafa am yu manqué. bi ma woowee euh, suñu manager bi. nee nañu mi ngi woo préfet. affluence bi demewul noonu. fukki central ak ñaar ñooy jongante ñuy xaarandi lu ëpp ñetti téeméeri junni nit yu war a ñëw sànni seeni xob. bëgg-bëgg bi benn la rek liggéeykat bu nekk ñu daal di koy jox àq ak yelleefam. jongante moom euh, noonu lay noonu lay demee mais bu bés bu jeexee nu saafonte. jongante yi nag ñu daal di koy amal diggante huit heures ci suba euh, jàpp juróom-benn waxtu ci ngoon résultat yi nag ñoo ngi koy xaarandi soxal nag jongante yi amoon 2017 lu ëpp ñaar téeméeri ju nekk juróom fukk ñoo bindu woon ci liste yi naam nag ñi nga xamante ne ñoo sànni woon seen xob ñu tolloon ci juróom-ñaar fukk ak ñaari junni maanaam téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo daal di sànni seen xob.